man li ma gëm laay wax man sëñ Tuubaa mooy sama sëriñ. sëriñ Tuubaa ñëpp dañ ko gëm. ne la bu Amadou Ba faloo maanaam laaj réew mi ba bi jeex ba mu pare amul benn kilifa diina boo dem saafonteeg moom ni ko ñaanal pour jàmmi réew mi la def. maa leen di bu baax a baax am ngeen jàmm Cheikh Abdou Bara la ñuy déglu ji ak Serigne Saliou Gueye débat bu neex bu saf-saf nag commencé na dal ci kaw ki nga xam ne mooy Basirou Diomaye Faye nee na Basirou Diomaye Faye gëmul Serigne Touba bëggul diine ji day yàq diine ji gaa ñu seetaan ni Cheikh Abdou li nga xam ne loolu la wax. man li ma gëm laay wax man sëñ Tuubaa mooy sama sëriñ. sëriñ Tuubaa ñun ñëpp dañ ko gëm. man ñëpp dañoo gëm man man. Ah. Tuubaa ñoo ma fal. Mm-hmm. deux mandats bu ma taxawee Assemblée nationale Tuubaa tax li may défendre mooy doomu daara défendre kilifa diine yi te li am màkk laay bañ mu am Tuubaa tey benn sutuyante buy doxal màkk waa Madina amul lépp ay buur ñoo ko yore man mënu ma nit da nekk da ngay laaj président la république. ñu am ay compétence kilifa diina yu ñu téye ak kilifa aada. nga dem maanaam laaj réew mi ba campagne bi jeex ba mu pare amul benn kilifa diina boo dem saafoonteeg moom ni ko ñaan ñaanal pour jàmm réew mi am na te jamaay loolu la def. est-ce que koo xam du tuggoo sim réew. Ah? Ah? waaye non mais il faut arrêter ça aussi nag vraiment xam aussi honorable moom discours am toujours ay seetu leen kilifa diine yi ndangama et cetera waaye bàyyi leen la discrimination li muy wax loolu dafa baaxul ci réew oh, na ko bàyyi oh, oh, ah, ah loolu bu ko waxee bu ko fexee bu ko fexee ma contredire ko de mooy man position bi ma nekk moom laa gëm man bala ma naan naam dama fi nekk mhm. gis nga programme bi ma ko liiree projet yi moom lay wax ndax procès dafa am ku ko tëvri woon indi ay livre solution kooku doxalu ko keneen moo ñëw ah, keneen kooku ñëw muy jomaay amul xam-xam pour man a jiite réew mi non non parce que six ak neuf bokkuñu jomaay man bu fekkente nii ah non non non il faut qu'il defoon assemblée expérience parlement fukki at waay non loolu non non loolu loolu yorul de xam nañ ay parlement bi xam nañ nu muy doxee li ma gëm moom laay wax mais lan nga lan nga gis. Ousmane Sonko fa la jëm li ma gëm laa gis nga loolu moo tax man samay choix damay copté bala may tànn choix pour ñëpp damay tànn choix pour Touba ba pare. avant may tànn sama choix vendredi moo nekkoon recours dernier recours euh, euh, bu PDS. Cour suprême joxe li nga xam mooy verdigam. samedi ma xëy dem Touba dimanche ma rencontré xalif sant de Mouride wax ko lii mooy situation bi waxtaan ak moom mu ñaanal ma ma génn sama déclaration. man procès bi ma njëkk def wax naa ko mooy li tax ma tànn Amadou Ba man ku ne xam na ni Macky Sall dama contre Macky Sall laajatul jeexal na kii ñëw na pour procès pour Touba ak réew mi parce que bi ma ko liiree la mu wax mooy fu ma mën di jëlee financement mu toll si deux cent vingt milliards dinaa indi ladde guerre bi mu yor diggante Touba ak Mbàkke sim ndox mais loo xam 1960 ba fay ñu ngi koy bëgg mënuñu ko am man est-ce que man bu ma dee gor te bëgg Touba ndox mi man bu ma dee gor Touba tànn ma bu ma dee wax bu Touba est-ce que man waruma wote loolu. mais loolu Macky bi mooy bu fekkente ne ni tey moom indi na ay procès yoo xamante ni pour ndaw ñi la. Mhm. te ku ne xam ne ni ku wax ndaw ñi wax Cheikh Abdou. Mhm. ku wax social wax Cheikh Abdou mu ne dinaa jël un million yoo xamante ni dinaa ko def pour emploi jeunesse. Mhm. dinaa jël tamit jigéen ñi yokk li nga xamante ni mooy seen bourse bu ko 500000 jël mag ñi nga xamante ni. dañoo retraité ñu leen passion te duñ mais nous, nit bu ko waxee ta nga gëm waxam nga ne réew am parce que expérience dafa war a jiitu xam-xam topp si dal topp si nga respecté fay diine yi loolu moo tax ma ko ku xam na ni bu Macky ne xam na am configuration bu ok d'accord ne xam na ni bu ku ne xam na ne bu Karim nekkoon candidat duma jàppale Amadou Ba ku ne xam na ne bu Sonko nekkoon candidat du ma jàppale Amadou Ba mais mais man mais man la gëm mooy ñooñu jàll ñépp man sama candidat jàllul moonte pourtant PDS bi muy dugal li nga xamante mooy résolution dama ko jàppale mhm. mais bi mu indee waa pour ñu dàq élection dama lànk bi ñu wote jalo dama wuy ji bi ñëwaaté pour que manam ñu ni légui manam PDS dugal na recours lan la wax d' accord uma si ba paré bindu conseil conseil mu jox ma sama 30 millions 30 millions yooyu mu ma delloo moom laa jox wa Touba sédul len ko mhm. ma koy jox si ay vision lay topi nit mom la ànd nit Ousmane Sonko mo gëna nek sama xarit anduma ak mom parce que nekkul candidat kon xarit taxul ma ànd ak moom li wax <clears throat> pour que man Amadou ma choisir ko parce que Ousmane Sonko bimu mu ci prison lan la wax Ousmane Sonko ak Macky Sall motax 80 personnes dee bi mu lan la wax bu kenn tudd Macky Sall ànd ak Ousmane Sonko moo tax Macky Sall def ma li ma def mu ne yéen askan bi nga xam ne yéen doon dee ak nit ñi leen Macky Sall mu génn dem yoon tranquillement kenn du ko tuddati léegi ñu ngi tudd Amadou Ba mi nga xamante ni kenn mus ko épinglé génn ko e. génn ko fii dama ne génn ko fii laa dama ne man ma choisir man ma e. choisir le candidat Amadou Ba ba e. pare ma ne li tax li tax muy gagné mooy moom kay défendre sa candidat man fa ma dëkk man fa ma dëkk man fa ma dëkk Amadou Ba dana ko gagné mais mais nan la koy gagné. mais nan la koy gagné. nan la def ba gagné Touba. parce que configuration yi maa ngi koy wax léegi dafa changé. PDS am na ci ci réew mi ma wuti jëkkër sëy maa ko wax. du maa ko wax su gannaaw su ma yàggut. wax xaac bi kay ak yooyu. maa ko xaacu waxoo ko man maa ko wax. salaam salaam gars yi maa leen di ziar bu baax a baax am ngeen jàmm gars yi maa leen di ñaan ngeen di abonné di like vidéo yi yéen a ma gën a xam tey Cheikh Abdou Bara Dolly lañ leen indi loon yaakaar naa seetaan ngeen vidéo ba pare débat bi neex na Serigne Saliou Gueye moom lii moo tax mu bëgg ko ndax doo réeré wala nga ndaw ndaw bu du wax dëgg noo mënti toll dana la wax dëgg noo mënti mel dana la wax dëgg ak koo mënti doon tamit boo wàccee yoon mu teg la si yoon loolu la ma neexee tey nag Cheikh Abdou Bara Dolly nekkul dafa commencé diaboliser sax moom dafa yàgg ci lii quoi jeu muy jeu nii def ci yàgg quoi dégg ngeen temps yële biñ woon Ousmane Sonko muy génn rek saa yu génnee Ousmane Sonko maa koy dimbalee maa ngi koy jàppalee dama bëgg ma génne di coow fu nekk mu dugg fa di wax nee na Sonko bu nekkoon candidat moom lay jàppale mais Sonko du Diomaye du Diomaye moo nekk nee na Diomaye gëmul sëriñ yi nee na Diomaye bëggul sëriñ yi nee na Diomaye demul Touba nee na Diomaye bi mu commencé campagne ba léegi demul ci benn kër kilifa diine comme ni ma dégg benn vidéo di circuler instant bii waa ji ne Diomaye Euh, demul ci kër sëriñ diine yi waa ji ne ko ñun faluñu imaam de président la ñuy fal kon du obligatoire joomaay dem ci dëkk diine yi joomaay dem na ci dëkk yëpp def na campagne am campagne bu am solo kon Cheikh Abdou Bara Dolly loolu leer na ñun faluñu imaam faluñu sëriñ président la ñuy fal kon moom bu bëggee jaxase nit ñi ak sëriñ bi rek commencé génne naan di gëmul sëñ bi loolu jarul wax ku gëmul boppam la ku gëm boppam la loolu suñ yoon bu ko neexee bu mu gëm sëriñ bi moom na nekk président liggéeyal ñu Sénégal quoi dem yoonam quoi nekkul dañ koy force ku gëmul sëriñ bi rek dafa baaxul wala nit ku gëmul sëñ Tuubaa dafa baaxul mais ku mu neex gëm ku mu neexul bu mu gëm est-ce que yow sax xam nga li nekk ci biir xolam quoi ba nga naan gëmul sëriñ bi est-ce que xam nga kan lañ ko tuddee sëriñ Basiru Mbàkke lañ ko tuddee moom lu tax ngay génn naan Basiru Joomaay gëmul sëñ bi bu ko gëmul sax lu ci sa yoon quoi ku mu neex ne gëw ma ku mu neex ne mat gëm na jamono yonente bi sax dangay gis ponk lu magum jëm taxaw ne gëmuma yonante bi gëw ma yàlla nit lan la si mën mais ku mu neex gëm ku mu neexul gëm waaw loolu lu suñ yoon mais Cheikh Abdou Bara daal li muy jéem a jeunes yi di jéem a jaxase taalibe ak Basiru Jomaay Fay Basiru Jomaay Fay gisoo fi kenn koo xam ne kenn ko nekk taalibe Sëñ Tuubaa loolu amul xam ngeen ne du wax kat bariwul wax moom ñàkkul fayda sax bay tontu genre wax yu ñàkk fayda yi Bassirou Diomaye Faye ñàkkewul noonu fayda quoi nit nan nga koy xoolee ba mu yàgg quoi nga ne ko gëmoo sëñ bi man ñi topp sax Abdou Bara Dolly ñi nga xam ne ñoo ko gëm quoi ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm sant bi rek sant bi rek lañ la toppee quoi sant bi rek mais bu nekk woon sant bi yow yaay gën a yées yi Sénégalais yi loolu dafa leer politique bu mu tax ngay wàcc sa sa yoon quoi politique bu mu tax ngay wax lu dul dëgg politique bu mu tax ngay tooñ ay doomi aadama politique bu mu tax ngay sosal ay doomi aadama yow nee nga buggoo joomaay yemal si loolu quoi buggoo ko mais bul yàq daram bu ko jéem a waxal loo xam ne waxu ko ak di ko jéem a bokkat foo xam ne bokk fa Ousmane Sonko la woon mais léegi joomaay la quoi ñëpp ñëw nañ ci joomaay Sonko la woon gars lu nekk lañ fi yegg Sonko def nañ ko lu nekk teg nañ ko lu nekk instant bii nii voilà Sonko dem na quoi léegi Diomaye la pour lan gars yi maa ngi leen di fàttali élection yi suba la dimanche bu leen fàtte nag ni Diomaye la ñu voté gars yi su may wax nii sax gars yi dañuy jàpp ne man waxi dof lay wax instant bi mais xol laay waxee gars yi élection yi suba la dimanche le 24 ñun Diomaye la ñu voté gars yi képp koo xam ne daal bëgg nga Sénégal jëm si kanam demal nga voté Diomaye quoi. gis naa fi ay musiciens ay anciens footballeurs ay ñoom ñoom kese ñoom ñu ne si kaw kese ñoom ñoo ne ñoom ñoo kee la ñuy jàppale quoi Amadou Ba pour lan Amadou Ba yor na xaalisam kenn xamul fu mu ko jëlee ñun nag am na foo xam ne denc nañ ne foofu la ko jëlee di leen ko xëpp rek di leen ko xëpp rek ñoom am nañ baat bu ñu waxee ñu déglu leen mais gars yi lu ñu leen jox lekk leen suñu xaalis ngeen di lekk noonu yéen tane woo leen Amadou Ba bu lekk ribaa yéen kenn xamul leen di lekk yéen. ndax suñu xaalis ñun Sénégal yi leen jën di leen ci jox loolu lewu leen wax leen lu leen neex nag mu leen la wax a wax a wax bu Amadou Ba jël réew mi gars yi maa leen di jaajëfal bu baax a baax bu ci beneen video tey dama xaw a tàng quoi xol laa nekk di waxee yéen a ma gën a xam abonné leen like vidéo bi gars yi bu ci beneen vidéo jaajëf gars yi